ba ñu dëgër pii rek léegi mat na ñaari weer walla mu ëpp ko waaw lañu jàpp aussi mooy la ñu daan dig rek te gisuñu ko waaw ba ñuy dëgër piir fii dañ ne avant ñu ñuy dëgër pire dañuy jox site de recasement koo wax mu ne la jam ñaajo cinquante hectares jam ñaajo booy suñuy nopp waaw boobaak léegi yàgg na kenn gisul jam ñaajo kenn xamul jam ñaajo dama yaakaar ne su fekkee ne léegi président dafa ne signé ne cinquante hectares di ko jox ak mécanicien artisan jam ñaajo mécanicien yi bokk ragaloon naa bala ñuy dëgër piir kenn dinañ la yóbbu jam ñaajo commencé ko par président Abdou Diouf président Senghor président Ablaye Wade ba ci président Macky Sall mi fi nekk kenn tegu ñuy nit loolu nag ñun ñoo koy fajal suñu bopp ay xale lañu mën nañoo xeex mën nañ xam nañ yàq réew mi xam nga lu ñu leen di xamal dafa doy. dañ ci am sax ak jaaxle waaw ndaxte le ministre Abdou Karim Fofana moo ñu déger piir fii te Abdou Karim Fofana moo ànd ak ñun ba ci le ministre Maxime Ndiaye à la présidence wax ko a waxtaan ci ak moom ci problème mu secteur bi ñu wëlbati ko mu yóbbu ñu ci Pape bu DER. Pape bu DER directeur bu DER daal di ay artisans fii ci parking bi ñu ne leen dem leen ngeen liggéey ay jeunes ngeen. financement yaa ngi ni jël leen ko ngeen dem liggéey ñu jëli ko ñëw daal di investir ku nekk ubbi sa magasin ñi seen cantine ñi jaay huile ñi di jaay euh, ay produits ñi di jaay matériel automobile ñu xëy xëy un un jeudi vendredi kii mercredi ci ngoon ñu daal di ñëw andi ay sommation def si sans dele jeudi bi ñu ñëw à 23 heures. daal di jaxase lépp yàqate lépp fekk ñëpp julli ji nañu ñi nga xam xamante ñoo jóge bitim réew ñoo ñu di leen jox ay hectares ñu di ñu di fi bay di jël di bu seen réew lu tax ñun suuf soosu mënuñu ci jox ñu liggéey te ñun sàcc ñu fenn ñu jox leen ñu liggéey yomb na jox leen ñu liggéey suuf si ñoo ko bokk jox leen ñu liggéey ngeen bañ pour lan da ngeen bëgg ñu xeex dinañ xeex ba mu saf sàpp man nag sax sax moom dama koy poser une question waaw ndaxte leen dafa am léegi yow nan la état mun a lebal ay nit ne leen liggéey leen damay créer cinq cent mille emplois yow heure bu ñu créé bu ñu ne dañuy créé six cent mille emplois nga rey mille emplois waaw par mois léegi cinq cent mille emplois yi dama koy poser la question kañ lay mat te bi mu xamee ne aussi bu ñu lebalee ba pare day ñëw yàqate ko waruñu woon dugal ci problème mu DER bi waaw bañ ciy jël xaalis léegi ñun nan la ñuy fayee banques yi état moo ñu lebal moo pour ñu investir état moo ñëwaat yàqalaat ñu. waaw kon léegi ñun nan la ñuy def pour fay banques yi mënatuñ ko fay mënuñu liggéey si yo boobu moom mu jëloon charge affaire boobu mu waxtaan ak ay auto ay ay collègue am léegi ñu seet ñoom nan la ñuy def mais ñun amatuñ luñ fay mënuñu fay ñoo ngi leen di wax ne leen ñoo ngi dem Touba merloon nañu nag waaye du tee ñu dem dépannage gratuit ñoo ngi wax xalif généraux yi ne leen ñun ñi nga xamante ni seen njaboot buy ñëw foofu ñooy dugg ci mesure yu tàng yi leen dépanner ñooy fexe ba yi wàññeeku ñun seen njaboot bu ñuy duma kenn du wax ci ñoom ñu leen xamal ni leen nag ci njaboot gi lañ bokk parce que suñu ñàkk la jël bàyyi suñu kër bàyyi su njaboot jël risque dem ci ko tali bi di dépanner nit ñi koo ci dépanner ba pare mu ñaan la su paree fàtt na la suñu yëre ñu li ne taxul ñu lay ay dof xam nañ fi ñu jëm li ñu leen di wax nag mooy mécanicien yi ku leen laalati yow ak ñun di nga am problème bu sérieux te lii nañ ko le te buñ jëlati nag ministre bu yambar bu ne ñu ne nañ ko jox mécanicien